gis nga suñ dëkk bi moo tax ma ne la programme yi gars yi defar nii il y a des réformes à faire des réformes majeures à suñ ko defulee suñ démocratie di dellu ginnaaw may mun a il est inadmissible qu'au Sénégal on ait trois cent partis politiques trois cent partis politiques ça c'est amul sens Sénégal le président de la République il a trop de pouvoir bu fekkente ne amul benn candidat bu taxaw ne day réduire ay pouvoir ay pouvoir président kon ñu xamante ne kii nar ñëw il va faire pire que Macky man dama gëm ne le prochain président dafa war a wàññi seen pouvoir moom renforcer pouvoir assemblée nationale te loolu ba léegi déggoo kenn ku ko wax. mais fii koo fi wax ne est-ce que président dafay décharger wu euh, de ses fonctions de euh, de chef du conseil supérieur de la magistrature mën na la non non. moo tax ma ne la kenn nanguwul jël engagement bi moo tax moo tax ma ne la. <laughs> le mandat le mandat le mandat qui le doit être, doit être un mandat de transition pour amorcer des réformes majeures may mu ne Sénégal xam nga ma gëm kii ñëw Sénégal cinq ans yi mooy defar Sénégal ba faw mbaa mu yàqu. donc Badou Sène. Euh, Khalifa day def un mandat. non non non je veux dire gis nga les réformes ratées ba léegi bu nekk un condensé suñ ko réglé wul suñ ko réglé parce que on est on est à la gis nga tey mu neex mu yi ñun su génération ñun ak suñu rakk yi. ñoo aye ñoo ñëw après mais pour ñu ñëw il faut ñu baliser voie bi ba nga xamante ne on a le problème de mandat de président. non problème mandat jeex waaw ma expliquer rek de de de mais xam nga keneen mën na ñëw changer fii et cetera yooyu dafa war jeex ay mandat ay casquette président fii casquette chef de parti fii parti yu bëri yëpp dafa dañ koy wàññi ensuite ñu attaquer les questions de société may mun na ñun heure bu ñu xëyee di liggéey muy yow muy man le spectacle qu'on voit dans la rue c'est désolant ay mandiant la ñu gis ñu yor ay bébé yu ndaw ay jumeaux ñi ay jumelles ñi ay xale yu ndaw les enfants de la rue te doo dégg ko ci naan ko ci wax moi candidat loolu moo nekk sama chantier. yow candidat wala xale. dama ne man candidat. yow yow waaw man man man candidat loolu day bokk sama chantier naa ko verser dans la corbeille du programme de Khalifa parce que jàpp ne. ñun on laisse des choses muy am yoo xamante ne c'est affligeant